ñaan Sénégalais di leen wax on va vers du sérieux ce sont des élections présidentielles tey kenn waru jël ay stagiaire président hmm. kenn waru jël ñu nga xam dañoo di tatoni di toog ay weer ay weer di seet Sénégal tey dafa sonn façon boo xam ne nañ ko jël teg ko ci loxo ku xam dëkk bi ku mën liggéey ku mën a yóbbu dëkk bi kanam si taxawaay. Mhm. ndax urgence dañu bari. amuñu temps tâtonner. Mhm. kon maa leen di wax nañu ànd ak seen xel. qu'il fasse le bon choix. qu'il fasse le et je suis persuadé taxawee ci loolu rek le bon vraiment de manière naturelle. jërëjëf di la sant bu baax